mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nga xam ne yéen ñuy teewlu fii ci Touba Almahrousa euh, am benn jotaay bu ñu fiy def fii ci Mbusoobe Mbusoobe gi ci Mbakke fekk fi njabootug sëñ sëñ Mbusoobe ñu feggoo ceeg sëñ Murtala Buso ak sëñ Bachiru Buso di ay sët ci sëñ Mbusoobe ñu ñëw fii nag tey ci màggalam gi moom mi nga xam ne moo bokk soxna jaara lépp rek euh, fii nag ñu taxaw di am cosaan am taarix am particularité ci yoonu murit muy yéer gi nga xam ne nii moom moom ngeen di gis nii suñ ginnaaw fi sëñ bi bindee Masaalikul Jinaan xam naa kilifa yi bu ñu jëlee kàddu nañ ci ñëw bu baax a baax a baax xam naa dañuy gàttal rek fàttali ne tey jii ñu ngi ci fukki fan ak juróom-ñett ci rabiul awal atum junneeg ñeent téeméer ak ñeent fukk ñett ci ati gàddaay gi dëppoog le 25 octobre 2021 kon xam naa kilifa yi la ñuy jox ñu nuyoo bu ko defee ñu sóobu ci li nga xam ne moo ñu fi dajale ñun ñëpp mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu seetaan ci site internet yi ñu jàkkaarloo ak ci télévision yi ñu ngi leen di nuyu bu baax jiital nuyoo bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ak fi loolu te ànd ko wér ji teg sëriñ Bousso Bousso mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Bousso bi ak mboolem njabootuk sëriñ Bousso bi yëpp tey jii ñu ngi fii ci Mbàkke Mbawal ci jumaay Masaalikul Jinaan ci Bousso bi ci bis bu màgg bis bu tedd boo xam ne ni ñu ngi koy defal sunu maam sëriñ Bousso bi Bousso sëriñ Bousso bi it ku ne xam na ko ci jàmbaari lislaam jum doonoon doy na sëkk rekk ci bi imaam Maba Jaxu radiyallahu anhu wootee ci xare boobu ci Saalum mboolem kilifa diine yi nekk ci Sénégal yëpp biñ dajee moom lañ jëloon def ko muy imaam bi di àttekat bi loolu moo indi turu Serigne Bousso bi tey jii di bis boo xam ne moom nañ koy fàttaliku di fàttaliku Serigne Bousso bi ak Serigne Sa ak mboolem njabootu yëpp ñu ngi fii ci pàkk bi nga xam ne Serigne Touba moom la ko rafaatale woon ñu ñëw fi buñ li waral bis bi nag mooy fàttaliku ak ñaan mboolem mag ñi ci niñ ko tudd teg ko ci sunna bu ñu xëyee jàng nañ alxuraan fukki kaamil ak ñaar ak lu jiitu kaay mi dañ jàngoon jàngi xasaayit danañ ko yendoo ci ay berne bu noppee danañ def waxtaanu diine fàttali jox bu noppee mbooloo mépp danañ àndoo dem siyaare ji barabu sëriñ Bousso bi xam naa loolu dañuy jox sëriñ Basiru Bousso moom mi nga xam ne moo ñu ñëwal ci taarixu li waral sëriñ Bousso bi ñëw fii ak yir gi ñu ko waxee ñu wax téere bi jox Masaalikul Jinaan sëriñ Touba bi mu koy bind fii la nekkoon ànd fi ak sëriñ Mbàkke Bousso sëriñ Mbàkke Bousso di doom ci sëriñ Bousso bi kon loolu moo waral bi sëriñ Touba namee sanc Daaru Salaam mu jël pàkk yi pàkk bi faatale ko sëriñ Bousso bi kon loolu la ñuy jox sëriñ Basiiru Bousso mu indi ñu ci lu mel noonu loo xam ne des na ko mën a jariñoo mu nekk ab yóbbal sëriñ bi kon bisimilah. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te leen ziar bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mamadou Mountakha xalifatul am di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te may ko di ziar bu baax itam sëriñ Bousso bi Bousso mi nga xam ne mooy kilifa njabootu Bousso bi gi yëpp moom it di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te may ko wér. mu mel ne li ko sëriñ Mouhamadou Mourtada waxee rek li tax ñu daje fii tey dañuy màggal jàmbaar yi lislaam joo xamante ni nii adduna bi yëpp ka bokk islam bi yëpp ka bokk muy sëriñ bu soobe ñu koy def ci pàkk bu sell boo xamante ni suñu borom moo ko tànnal muy fii ñuy wooye mbusoo bi ci Mbàkke di ko fi amalee kon loolu mooy yillay bis bi mooy bis boo xamante nii bis bu am am solo la ni mu ko waxee alxuraan lañ ciy jiital ak xasida ak salaatu ala nabi ak bernde ak ay waxtaani diine yoo xamante ne nii moom la ñuy yendoo ba ngoon jot ñu daal di dem nag ci armée li Mbusoobe fa nga xam ne fa sëriñ Mbusoobe tëdd ak sëriñ Mor Jaariñ bu ko defee ñu siyaar ko moom doog a yeewiku incha allah noonu la bis bi fas yéene tëddee xam naa kon laaj bu njëkk bi rek sëñ Bachirou mooy nga dikkal ñu ci sëñ Mbusoobe ak nekkam fii fi Mbàkke bi ko fi sëñ bi dëlee ak jëkk loolu nan la barab bii demee woon njëkk mu fi nekk ak bi mu fi nekkee fan la yóbbuwaat barab bi. ak nan la fi nekkee woon. waa kay kenn ku ne xam na ne Serigne bu soobee euh, da doon bagante Jolof ak euh, Bawal waaye bi nga xam ne Mabba woote na jihaad ju mag mag jooj mu woote woon Serigne bu soobee dafa bokkoon ci ñi nga xamante ni ñoo dem ngir jàppale ko ci jihaad ja wax nañ ne sax turu Serigne bu soobee foofu la ko jëlee Muhammad la tudd. waaye euh, atte yi nga xam moo daa ñëw ci lislaam lu ñëw rek ñu ne jox leen sëriñu mbusoobe ba looloo ma dama moo sax ba ñu naan ko sëriñ mbusoobe foofa nag la sax ba jihaad ja jeex wax nañ ne mabba moo ko moo ko moo ko moo ko euh, defar jullee ko denc ko bi loolu amee nag ci la dellu naawel nag toog fa ngir yor soxna astawaalo mi nga xam ne mooy way juram soxna astawaalo nekk fa ba yàlla dogal mu génn àdduna gannaaw bi nag ci la sëriñ bu mag bi sos yoonu murit bi mu sasoo mu murit ba ñibbisiwaat Mbàkke Bawol nag ci la yebal Cheikh Ibrahima Fall ngir mu jëli Serigne Bousso bi mu ñëw ñibbisi Mbàkke bi mu ñibbisee nag ci la ko jox kër boppam gi nga xamante ni fi la dëkkoon muy fee mu tëdd tey muy armée li Bousso moo tax euh, bërëb bi nekk bërëb boo xamante ne nii bërëb bu màgg la bërëb bu am solo ndax Serigne Bousso bi euh, bi nga xamante ne nii euh, bi nga xamante ne nii Euh, sos nañ yoonu morit wala sax bi nga xamante ne nii Cheikh Omar Foutiyou Tall ñëw na Mbacke Bawol ba di topp leeruk sëriñ bi ci barab bi fi la dajale woon mag ñi di leen xamal ne sëriñ bi mi ngi waaj a ñëw e, te bu ñëwee mooy ki nga xam ne moo war a defar islam bi yépp kon kon e, barab bii ci la xewe woon barab bii bi itam ci la sëriñ bu mag bi daa bindee masaalikul jinaan wax nañu saa yu masaa xëy day jógee fële ci kër ga daal di ànd ak Serigne bu so taalibeem ba soppeem ba wëllëreem wa daldi ànd ak moom ñëw fii ci bërëb bi toog ci yiir gi yendu fee bind lu mu bind jàngal ko ko ba ngoon jot ñu daldi delluwaat ca kër ga kon yiir gi fi la Cheikh Omar daje woon ak dajale woon magi Mbàkke di leen xamal leeruk sëriñ bi fi la daje woon ak fi la sëriñ Touba itam doon xeeñtu leer loolu nga xam seex Omar defoon na ko ba tax saa yu xëyee mu ñëw yendu fi dirub juróom-ñeenti weer yoo xam ne fi la nekk di fi taalif xasidam goog di Masaalikul Jinaan lu mu taalif jàngal ko sëriñ mbakke bu su bu ngoonee ñu daal di dellu ci kër ga dirub juróom-ñeenti weer kon loolu mooy cosaanu euh, garab gii ngeen gis tey nga xam ne boobu ba tey mi ngi fi bi nga xamante ni nii nag euh, dem nañ ba nga xamante ñuy defar jumaa ji am na ñoo xamante ni sax dañoo amoon xalaatu dindi garab ga waaye keroog bi ñu ko waxee Serigne Abdou Salam mi nga xam ne boobu moo mag ci njabootu Mbusoobi gi yëpp dafa wax ne Euh, lii de mbirum sëriñ bi la kon nañ dem ku fi nekkal sëriñ bi rek ñu laaj ko ndigal ndigal lu mu wax rek ñu def loola booba alaaji baare moo fi nekk biñ demee laaj ko alaaji baare mu ne leen buñ ko dindi waaye nañ ko wutal bërëbu boppam looloo tax ñu def ko nii ñu ko def nii nga xam ne dañ ko génne jumaa ji du wutal ko néegu boppam muy yiir goo xamante ne nii gu ama am solo la goo xamante ne nii euh, yiiru barkeelu la mm, sëriñ bu soobe nag moom dafa nekk mag moo xamante ne nii euh, bu weesoo li nga xamante ni doon na ko ci sëriñ bi nga xam ne mook soxna jaare ñoo bokk lépp dafa participer bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne moom la sëriñ bi doon liggéey ndax kenn ku ne xam ne ne sëriñ bu mag bi bi mu defee lixtikaaf fa daaru xudduus bi ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ne ko euh, xamal ko ne ko natt bi war naa tegu ci sa kaw ñaari euh, ngant nag moo tax natt bi du tegu ci kaw bu njëkk mooy Tuubaa gi nga dëkk suñu borom dal ko aaral ba aw ay du la fekk mukk ba àddina àddinay tukki bu ñaareel am nga nijaay ju ñuy wax sëriñ bu sóobee ku suñu borom rus la saa yoo xamante ni teg nañ natt bi ci sa kaw yërëm na la yërëm goo xamante ni dana ñaan suñu borom te bu ñaanee suñu borom suñu borom dana ko nangu kon moom it mënut a nekk ci kaw suuf natt bi di tege sa kaw kon ñaari gàllankoor yooyu moo tee natt bi ci tege sa kaw wax nañ ne sëriñ bi loolu weeru koor la woon bi mu waree rek da daal di génn Touba dem sañ ci Mbàkke yi def fa koor kori diggi tabaski sëri sëriñ bu soobee wàccub liggéey mu daal di ñëw Mbàkke siyaari si ko wax fi wax ju réy jooju moo xoon ci bi nga xamante ne nii mi ngi jaali sëriñ bi wax nañ ne bi mu taxawee di mettitlu dem gi nga xamante ni sëriñ bu soobee dem na ko euh, ci euh, ci ci ci sens rek ñu gis sëriñ bi mu wane euh, mbégte ci kanamam biñ ko laajee lan la mu ne sëriñ suñ borom xamal na ma ne fii sëriñ bu soobi tëdd képp koo xamante ni denc nañ la fi doo gis lenn looy ragal ci barab boobu nga xam ne fii la tëdd ci euh, mettilu gi nga xam doon na ko mettilu dem gi sëriñ bu soobee euh, dem bi ko ñaareel ci barab booba li fa am ci ay xéewal keroog bi nga xamante ni sëriñ Mor Jaar mi nga xam ne mooy magi sëriñ bi génn na àdduna seriñ bi dafa wax ne nañ ko yóbbu ca nijaayam sëriñ bu soobee ndax mi ngi ma doon laaj wéttal ñu jël ko mu ne buñ koy denc nag nañ wut koo xamante ni ku am kàttan la ñu jox ko lu mel ni njuur mu sànni ko ba mu ñett yoon fu mu dal nañ fa denc Serigne moor Diarra ñoom ñaar seen diggante malaaka yi laaj ci bàmmeel xamuñu ko loolu itam nag ay tawfeex yoo xamante ni am na ci bërëb boobu nga xamante ni fi la Serigne bu soobee fi la Serigne bu soobee tëdd kon Serigne bu soobee nekkoon jàmbaar joo xamante ni jàmbaari xare la ndax euh, euh, xare màbb boobu ñuy wax nekkul koo xamante ni dafa demoon rek yem ci ay téere waaye doon gàddu jaaseem di xeex dugg ci terrain bi di xeex comme ñëpp nga xam ne am na bis boo xam ne sax wax nañ soxna sawalu ñëw ne ko sa doom jadee rey nañ ko sëriñ bu soobe mu ne leen man juruma luy dee ci xare waaye biñu demee ba ngoon jot ñu daal di gis sëriñ bu soobe daal ñëw ñu xam ne soxna sawalu waxoon am na nga xam ne sëriñ bu soobe jàmbaar la woon joo xamante ni moom euh, liñ buñ ko mënee tënk daal euh, mën nañu wax ne moo nekkoon xutbub jamonoom xutbub jamonoom loolu ñi ko seeral bëri na ñu ñu xam ne sëriñ bu soobe xutbub jamonoom la woon nga xam ne daal kon xam naa bu fekkee am nga beneen laaj mën nañu tënk foofu bu ko defee ngeen di beneen bi ñu koy tëjee rek gannaaw mbokk yaa ngi lay soññ te tey bisub euh, bisub xéwal la mhm. laaj bi ñu koy tënkee rek mooy sëñ Bousso bi ni mu charia wooyoo ni mu tegoo woon ci aw yoon mhm. sëñ ni mu meloon ci diine mhm. maam Cheikh seen biir ñoom xalaaxa bi doxoon seen diggante ñoom ñett yooyu loolu ñu ci indi rek ñu tëjee ko waxtaan bi ñoom ñetti benn <laughs> xam ne sëñ Bousso bi moom léppam moo defal lépp Mamor jaara moo ko yar moo ko jàngal moo ko ba bi nga xamante ni si nañ Mbàkke moo ko wax ne ko mbooloo mi ma àndal yépp jox naa la ko ëllëg yow mal yow laa koy laaj daane ko nag na nga samp sa bërëbu euh, bopp ndax toll nga foo xamante ni warutoo nekk ci ginnaaw kenn daal di koy samp sancal fii ñuy wax Mbàkke Xewar tey nga xam ne sëriñ bu si ndigalu bu soobe la ko sancee euh, ba euh, tey léppam mën nañu wax ne sëriñ bu soobe la Cheikh Ibrahima Fall nag moom dafa nekk seenub taalibe boo xam ne nekk seen biir lépp luñ soxla mu defal leen ko ci bëgguk sëriñ bi ndax xam nañ Cheikh Cheikh Ibrahima Fall bëgguk sëriñ gi lay dàgg te xam na ne ñaari ñooñu ku leen defal Euh, da nga dakk da nga dal ci bëggu mbégum sëriñ bi moo taxoon lu mu doon man ci euh, bégal leen rek mi ngi ko doon def euh, léegi firnde ji sax bi sëriñ bi di yebal di wooy jëli sëriñ bu soobee Cheikh Ibra la yebal moo ko Cheikh Ibra moo ko yebal moom la yebal moo ko wooyi mu ñëw ñu bisi Mbàkke bu dee sëriñ Mor Jaara itam sëriñ sëriñ Mor sëriñ Cheikh Ibra tuddee na ko doom moom it ñu amoon alaaxa bu ama am solo ci ci boo xamante ni moom macha allah bi nga xamante ne sëriñ bi dem na ci géej gi sax euh, addiyee ji nga xam si Cheikh Ibrahima Fall daana ko jox sëriñ bi da koo xaajloo ñetti xaaj benn bi dee ko jox maam Thierno mu koy dimbalikoo ci njaboot gi beneen bi dee ko jox sëñ moor Jaara ndax amoon ameloon na ma Euh, muy àq ji ma ko ji war ci moom addiye ji nga xam war na ma ci moom beneen bi da koy nga koy jox ñi nga xamante ni war nañ leen di dimbale ñu koy dimbandikoo nga xam ne loolu lépp day tegtale ne alaaxa bu ama am solo moo amoon seen diggante boo xamante ne lépp a rafetoon lépp a baaxoon lépp macha allah. xanaa di sant bu baax a baax rek yi nga xamante site internet yi nga xam ne ñoo fi ñëw ànd ak ñoon ci euh, liggéey bii nga xamante nii mën nañu ñox liggéey bu ñëpp bokk la ndax sëriñ bu soobee ñëpp ko bokk loo xamante nii eh, kon daal dañ leen di ñaanal rek suñu borom kàttanal leen liggéey bi nga xam ne yéen a ngi ci mu defal leen ci lu kawe seen njortu ba fi ñuy dégg tele yi nga xam ne ay télé international lañ ñu leen di dégg sax fu raw foofa yomb na yàlla yan na ko yàlla def ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa dara daraje Serigne Touba ak daraje place bii ñu ne nga xam ne mën na lu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.